ñu ngi lay gërëm maa ngi am sax keneen ci ligne bi. Mhm. Euh, mu di Cheikh coro Mbacké nekk honorable député. Mhm. maa ngi koy gis nii ci ligne bi euh, sëñ Cheikh euh, honorable kon xoolal maa waaw kon ñun sama plateau ñu daje. baax na jërëjëf. kon maa ngi am Cheikh Thioro Mbacké honorable député maa ngi lay nuyu di la ziar yaa ngi en direct. sëñ Birama maa ngi lay fay. maa ngi lay auditeur 7TV yëpp fu ñu waay mën a seetaan ci àdduna jërëjëf. di jiital ci nuyu bi ak saar bi nag euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha. jërëjëf. di ko ñaanal sax borom mu yàgg fi loolu te wér. jërëjëf. amiin di ko ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yëpp nag. amiin Mbacke amiin amiin. xanaa rek di ñëw di ñaaw bi xew-xew bi nga xamante ni dal na ci seen kaw. Mhm. nee na dal ci kaw Sénégal yëpp. Mhm. ndax ku ci nekk xam na jigéen fi mu ci Sénégal mais ku ci nekk xam na jigéen fi ko lislaam teg kon bu ñu xëyee dégg ñu ne am na agression boo xamante ne dal na ci kaw suñu. wenn waajur ndax ñenn ñi waajur lay ne ci ñoom ñenn ñi mag lay ne ci ñoom ñenn ñi leneen lay ne ci ñoom kon bu dalee ci kawam day mel ne daal ci kaw yaay sénégalais yépp bien sûr Sénégal kenn xamewoo ko woon du mel nii. mais nag mbir bu amee da ngay doo ñëw di jël sawara di ko xëppaat ci kaw daay gi. Mhm. ndax bëri nañ ci ñoo xam ne mel dañoo taxawee place procureur dèjà àtt nañ ba xam kan moo def affaire bi. Mhm. te jàpp naa ne warut mën a demee noonu. Mhm. ndax li ma li dal ci kaw may mënul fay. jàpp naa ne moo dal ci kaw may Mariama Sagna a nga xamante ni moo nekkoon militant Pastef dëkkoon Kër Massar. Hmm. moo hmm. dal ci kaw doyen Sey mi jiite woon magi Pastef yi nekkoon Kër Massar. Hmm. kon dëkk bi insécurité bi fi am ci war a jóg. nga xam ne Sénégalais bu ci nekk da nga am droit protection protection boobu état war a gàddu. kon daal li daal ci kaw may mu ngi fay benn Sénégalais boo xamante ni rafetlu ko ko wala it souhaité woon nga mu am. kon daal damay jàpp ne dañoo war a yem ci ñaawlu ko. ba pare soññu état bi. mu ubbi ci enquête ba xam lan moo ne ci ginnaaw ak kan moo ko def. la. mais amul benn Sénégalais boo xam ne da war a jóg rek ak kese benn kuréel ne ñoo ko def waaye laa ñu ne ci ginnaaw lii jàpp naa ne loolu rafetul. te day gën indi xaajaloo ci aw xeer wa ilaa mu indi xaajaloo ci kaw kuréel. ndax may Ndour Faye ni mu amee ay xarit ci biir APR noonu la amee ay xarit ci biir Pastef. loolu wóor na noonu la amee ay xarit ci biir réew mi. loolu c'est loolu moom loolu wóor na kon ñu jël mbir di ko politiser di taqal genn kuréel kuréel goo xamante ni seen yoon néew loolu du waxee responsable du waxee koy defar ndax li wóor bu wóor mooy am nañu ne biir Pastef ñoo xamante ni ñoom Maimouna Ndour Faye comme mburu ak soow. ça c'est na ñu ne ci biir APR ñoo xamante ni ñoom Maimouna Ndour Faye comme xaj muus. kon jàpp naa ne mbir yi buñ ko yóbbu fu mu nekkul. buñ ko bañ buñ ko yóbbu daal ci terrain politique. déedéet loolu rafetul. nañ te gis naa ne ñu bëree bëri ñu jóg dafa mel ne dañoo dañoo jàppal ngànt Pastef bëgg ñëw jël mbiri tàqal leen ko te ñooñu jàppalaat Pastef dina jël pelan teg ko seen kaw benn militant Pastef ba xam moo def lii Maimouna Ndour ko ndax ku ci mel ne ma jàmbal dégg nañ ko léegi mu wax ba tudd ne lii waa Pastef ñoo ne ci ginnaaw loolu rafetul il faut que ñu jël mbir yi teg ko fi nekk kon daal ñun ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom yëkkati may mën a nduur fay sàmm ko te delloosiwaat ko ci ak njabootam te xam ne li ko dal dal na ci kaw yaayi Sénégal yëpp. Mhm. dal na ci kaw sëriñ Sénégal yëpp. kon kenn rafetlu ko dañ koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem. d'accord ko dal tamit ni ma la ko waxee léegi moo daloon suñu nga xamante ni moo nekkoon Kër Massar Mariama Sagna dañ ko violé rek. Mhm. ba léegi nii njabootam ñu ngi réclamé justice di xam lan moo ne ci ginnaaw. d'accord barki démb doyen sëy d'accord ñu ko def agressé ko ray ko ba léegi nii waa Pastef ñu ngi réclamer justice kon amul kenn ku gën a si insécurité bi ne ci dëkk bi ñi ci gën a perte ñi ci gën a ñàkk gis seen bopp mooy Pastef d'accord kon lu mel nii bu dalee ci kaw benn jigéen Sénégal yi day mel ne dal na ci kaw waa Pastef yëpp mais day mel ne dal na ci kaw Sénégal yi kon daal ñu ngi ñaan wax yoon mu ubbi enquête ñu xam lan moo ne ci ginnaaw lii ak kat moo ne ci ginnaaw mais ku ci dudd kenn wala nga àggale ci kenn day mel da ngaa taxaw place procureur te procureur liggéey mooy mu autosaisir ci leeral lii kan moo ne ci ginnaaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mu nekkoon honorable Cheikh Thioro Mbacké